sëriñ bi wax ne danañu julli korite gi incha allahu bu weer wi ci ba fukki waxtu ci suba mu am lu ca spécial ren loola mooy xam ngeen ne fi jamono toll tax na lenn demeetul na mu daan demee dañu daan def julli ayit kori ak tabaski dañ ko daan jullee ci penku jumaa ji ci jàkka ji nga fi lañ koy ren tolluwaayu jamono ak xat-xat yii ci am tax na sëriñ bi indi ko ci biir jumaa ji ñu war a jullee korite gi kon incha allahu ci biir jumaay Tuubaa ji fi ñuy jullee julli juróom yi foofu lañ koy jullee bu soobee yàlla bu fukki waxtu jotee ci bisu korite gi ñuy ñaan nag képp kuy ñëw ndigal yi nga xam ne sëriñ bi joxe woon na ko mu sàmmanteeg moom ba ca njëkk mooy mu maskawu wala mu yor kaala na yor masque wala mu yor kala bo agsee ba ci buntu bi mo raxaso ba set wala mu lal alkosel dugg ci biir jumaa ji soreele sappe taxaway ci sappe ni ñu koy defé ci ajjuma yi bu ñu jullee ba nopi tam kenn ku nek fa nga tok nga tok fa ba deglu khutba bi ba serigne bi waxtaan ak ñun ba nopi ñu ndank genn ben ben delu wat ci kër ya té ko aksi. fekk mu fees itam nga jàppalanteeg ñi fi nekk xam ne barab bi fees na nga dem fa mu gën a yaatoo nga jullee fa kon yooyu mooy ndigal yi nga xam ne moom la sëriñ bi wax ne nañu sàmmonteeg moom sëriñ bi wax ne mi ngi ñaan gone yi ak soxna yi ginnaaw jamono daa toll fii ñu toll ren mu muñandiku toog ci kër yi ba beneen yoon weneen yoon jotee ñu ñëw si ñu dooro mën a ñëwaat ci jullikaay yi nañu ko daan defee waye ren sering serigne bi joxene ndigal jigen ni ak gone yi ñu jullee ci seen kër ñu tok ci seen kër euh bayyi mukallaf yi rek yi nga xam ne mën nañu itam barab bi moko waral ngir xam ngeen né barab su féké daf daan def junni té légui ñu def def lu tollu ci ñett témèr ci misal maanaam fu ñett daan nek, kenn na fay nek bu boba barab bi dootu mëna tay jël lamu daan jël su boobaa nag dañuy seet ñi nga xam ne seenug toog moo gën a woyof ñu sàkku ci ñoom ñu toog ñooñu nag mooy jigéen ñi ak gone yi sëriñ mi ngi sàkku jigéen ñi ak gone yi ñoom ñu toog ba beneen yoon jamono gone yaatu bu boobaa ñu dellu def na nga xam ne noonu lañ daan def kon kuy ñëw daal na nga yor masque wala nga yor kaala soo accès na nga raxasu soo accès itam na nga boo iram, nanga itam na nga indaale sajaada boo xam lal fi ngay toog boo itam nga dem ba ca sa sàppe itam jataay na soree bu ñu noppee itam kenn ku nekk fa nga toog bi khutba, ba khutba ba sëriñ bi waxtaan ba noppi ñu door a jóg te bu ñuy itam ñu génn par benn te ko agsee itam ñu ne la barab fees na nga jàppalanteeg ñu fi nekk xeet benen barab bu yaatu ga jullee fa loolu moy ndigal yi nga xamni mom la sëriñ bi joxe ci julukay yi ya ci des nak nañu ko baxa wona def rek noonu lañ koy defé moy mbedd bu nek dana am ñu fay taxaw di orienter nit ñi ngir ñu mëna ñew ñëw ci jumaaji ji bunti jumaa itam bu nek dana am ñu fay taxaw fu barab des buñ mëna tok toog danañ ko won ñi nga xamni ñom ñoom ñooy julli si waaye kuñ la waxé né fess na yépp na nga xamné ñom saytu nañ ko ba xamné fess na motax ñu wax la ko na nga xol fenen fu yaatu nga julé ji fa lolu moy ndigal yi nga xamni mom la sëriñ bi joxe won ñu waroon leen ko jotali ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bala wax ñëpp